bu sew bii de yàgg na fi waaye bii moom démb la fi ñëw waaye bi mu fi dikkee xale yi dañuy yéeg ci kaw di daanu tey jii nii gis naa loo xamante ni yàlla moo ci def jàmm waaye kon maara day taali ndaxte xale bi dafa yéeg ci jalu xeer bi di ta tasanteeg jakarta bi agsi xaw na laal tànk bi sax mu toog fee di jooy ma ne ko du ma si wax dara ndaxte yow sànq ba léegi yaa ngi yéeg ma di la tere nga lànk wàccoo léegi boo ci gaañoo du ma la wax dara damay toog di seetaan mu jooy ba mu yàgg après mu dem nun nag sunu xale yi tiit na ndaxte ñun jàkkaarloo ñoom man miy jaay fii toujours damay wax rek ndax samay xale sax moo njëkk ci kaw la ni yéeg di wàcc te mënuma ci leen ñaari jakarta daanu na ñoo nekk ci koñ bi doon fi ay ndaw ah, ñu gis nag loo xam ne ni lu xaw a jaaxal la parce que constat la bu ñu def depuis ça fait plus de trois jours daa une semaine ñu gis suuf si ni nekk ci tournalu kàdd gi donc diggante suuf si a cantine bi rek daanaka matul un mètre ñu gis jéey yi mu fi def ba waag léegi parce que ay jakarta ngi fi daanu ah, ay borom oto si ñu ngi fi bëgg fël xale te ñu constaté ne aussi am na ci loo xam ne tey bu ñu ko seetaanee ñun suñu kaw lay képp waat parce que daanaka koñ bi ñun ñëpp suñuy jarbaat suñuy rak ñoo fi dëkk donc ñun nag aussi duñ duñ jël affaire bi collé ko benn autorité wala qui que ce dañuy jàpp ne constat la boo xamante ni tey ji ni ñun ñëpp dañ ci am wàll donc nag ñi nga xamante ni xañ na yaakaar nañ ne ñoom man nañ ci dara war nañ mën a ñëw jug ci wax ci dox ci ba lii jugee fi parce que tey ji ni aussi liñ ci li nga xamul mooy que ne euh, ko seetaanee nii rek tey ji ni après ñun ñun ci ñun lay parce que ku ci gaañu it responsabilité ñun ñu la incombé donc loolu mooy problème bi nga xamante ni tey jii nii moom moo la ñu jànkonteel ñun ñu nekk fii zone bi ni parce que suñuy doom rek daanaka ñooy jaar fii ak suñu rek ak suñu mag am na ci ay autorités yoo xam ne tey ñu am na yoo xam ne tey def naa ni kenn kenn ci ñoom réagirul pour ne kat maa ngi jéem pour xeer yi jug fi pour yoon bi au moins ñu bàyyi ko parce que comme ni nga ko waxee dañuy jug pour defar mais aussi euh, saafara su jur jàngoro aussi amul amul amul njëriñ donc jàpp nañu tey jii nii par exemple comme nii nii mbedd mi yaatu na waroon nañoo mën a aj lii ba fële donc kon donc waroon nañ ko mën a aj na le donc waruñu ko mën a bàyyi fii ci ko digg tali bi donc lii aussi bu ñu ko seedaanee mu jàpp fii ba lu ne xaj na fi donc loolu tax ñu jug aussi pour décrier ko pour aussi ku ci dara aussi ak ñi ci autorité xam ne ñoo ko ñu dimbali ci loolu daal mooy problème bi